audience bi nga xamante ne président de la république mayoon na ko maire yi nekkee ci département bu mbàkkee indi na coow lu rëy ci seen kuréel gii ana lu ko waral ñenn ñoo xam ne demoon nañ ñoo amal ndaje ak taskatu xibaar yi wax ne jot nañ xaalis te dañoo pare ngir jàppale président de la république ci référendum yi maanaam voté wii. mais président bi mu leen woowee hmm, dafa leen wax pour ñu jàppale ko. dañ ne dañ ne président dinañ la jàppale donc ña ko jot a jël kàddu dañ ne président dinañ la jàppale ci référendum bi. comme là mais bon peut-être qu'un weddiwul woon si salle bi qu'un waxul ci biir salle avec le président en face du président kenn waxul ne ko duñ la jàppale. ñu confirme ni ma la fi limal ñi nekk li ñu devant le président moom la ñu confirmé actuellement la ñu wax un ànd nañ ak Macky Sall d'accord nañ ci euh, référendum bi mu defar ba dinañ ko wote plus de 95 vingt quinze pour cent. ki nga xam ne moo jiite kuréel maire bu di Serigne Bassirou Mbacké bi ko laajee ci mbir yi moom la leeral. yàlla bi mu tàmbalee

Sering Mustafa mbàkke di maire bu misira mbàkke mom yok ci xar karaw ne audience la layu ci ben yoon biñ ko ko waxee daf du moyu ndax kat dafa japp ne Macky Sall djublu ci luddul mbirum politique man de maire la président la République wo war nga ko wuy mais na contexte ñu ku ne xamna na ne audience politique lay doon te comme ñun suñu association bi dafa apolitique mo taxone ñu joxe ngant ne duñu dem ñu ci wuñ ca suñu takk jégué wu fa kon defe naa ne lu fa mën a juddoo ña demul la engagé mais ñun pauvreté mooy non ndax askan wi ci boppam nag man maire la audience bi nag jur xaajaloo gu metti ci diggante maire yu mbàkke yi nekkee ci département bi ndax ñenn ñi nee nañu waaw la ñuy voté ña ca des ñoom nee nañu déedéet ci référendum yi ñuy dëgmal Touba Mbàkke Mamadou Makhtar Sarr pour la radio télévision